daf koy faral di gis xale yi di ko jaay ci mbedd mi rawatina bu tabaski jubsee ñenn si askan bi jàpp ne waajur yi war nañoo xoolaat seenub yarin si xale yi maam Thierno ñu fekk ko si bërëb bu liggéeyukaayam mi ngi àddu ne liberté gu ëpp gi dinay waral xale yi di def ay ñombe si bu ñu meree ak arme blanche yooyee. gone warta mën a yor ngànnaay di taxawaalu ci mbedd ndax saa yu meree rek da koy utiliser te bu ni muy utiliser du baax ci moom du baax ci ñi mu dëkkal. kon war war jur yi war nañ jël taxaw bu baax a baax bañ ci di leen contrôler daal ndax gone waru dem di yor ngànnaay ndax danger bu métti daal mi ngi ci biir kooku loraange la ci biir jaam ñi loraange la ci peuple bi te surtout dëkkab Sëñ Tuubaa bi loolu moom bëgguñu ko. Modou Ndaw moom it ñu fekk ko sa bërëb ba mu yem ak xalaat ak maam Thierno di ñaan ñu yokk kaaraange ka réew mi. ay jamono yu néew li li am ni amutoon waa nag booba li am li am nii Tuubaa amu fi di tabax ay immeuble di ko luyaas di ko luye ay luyaas bëri fi sa dëkk nag moom soo xasee am luyaas rek daanaka problème mu fokk mu taxaw ndax ki fi juddoo dana fi ne ku jóge fene ñëw di fi luyaas dana fi am ñaar fa ñett dana fi ne bandi bi fi ñëw mënoo koo xam ndax tubaab benn affaire benn affaire ñu ngi koy commencé fooye mais gone yi tout tànk yi paak yoon commencé war sax loolu nekkul na loo xam ne nekkul nekkul lu jaadu ndax moom yaakaar naa ne nit war jéem a rañu lu ne sori na ba mu des affaire jame waxtu maag tout tànk comme sama classe bii nga xam ne dama bëgg leneen ëllëg waan dëkk bi nag fi ñu toll dafa ne day dëkku mag Tuubaa moom koo xamul koo xam léegi xam ne dafa màgg si côté bépp léegi nag liy wax ji mooy gone yi moom benn affaire dong ngay seen baax na nangu noo liggéey dool ga sareet di nag ñëpp laay tudd waaw baax na nangu noo liggéey lool waaye nag comme ñoom xët-xët la ñuy seen seen mbir te noonu nit nit na laa tan sax def nga dem clamé ko foo chef de chef de marché ba wala chef de garage ba ko ba ko ba yor garage ba ñu woo leen ñu tënk li ñu tënkee suñ ko mënut su bu mu tee nag ñu woo yoon yoon moom lu mu na lijjanti ko ndax li may wax li may wax gars yi loolu moom baatu wax la police moom kon nag loolu lépp luñ a taxaw la rek dox sa xam ne moom dëkk moom suñ sa ki ko moom su côté bépp da defar na ko ba pare kenn mënu koo yàq moom ku ku bëgg a yàq tamit yaay yàqu yàgg lan nga fiy lijjanti pour mu yàqu pour nga yàqoo fi dem wante rek moom min def mun du ko yàq sa dina waa ji moom nee na rafetluwul benn yoon xale yi di jaay ngànnaay yi ndax dañu koy utiliser di ci def ay ñaawteef. maa ngi seetaan léegi rek euh, ci Madiana loo xam ne yéeme na lool loolu nag ba tax war naa tax it nag ñu sàmmate armo yi ndax xam nga loolu ñaaw na trop loolu moom dañ ci war jël matukaay bu mat sëkk ndax fi gi dafa ëpp. kon nag war na teg ci yoon woo xam ne tamit war na teg ci aw yoon paakee ne ko ay mag di jaay dan moo histoire yal na yàlla dimbali defal defal ñu jàmm déet ñooñu ñooñu ñooñu moom dañoo bëgg a jaay waaye xam na ne te loolu ñoo def mhm. loolu wax dëgg yàlla gone gu ko jox paaka wala jaasi mu jaay wax dëgg yaa ko moom yaa wax dëgg yàlla loolu daa wóorul ñoo ñu li ñuy def ku xamul li ngay def nag maanaam yow mi nga xam ne yaa koy yox yaa nga xam ne mu demee waaw jaay ngànnaay yi ci mbedd yi nekk na mbir mu doy waar lool ndax histoire fu ne lay jugee te mën nañ koo jëfandikoo ngir def ci ay ñombe bi ci mujj di ji ñu rayoon Madiana ak démb ci talaata ji bi ay 20h jotee jàpp 22h ci ab agression ci benn mayga ba sax ñuy ñaan nguuru ko Sénégal mu xoolaat bu baax a baax a kaaraangeeg réew mi tey dénkaat waajur yi ñu xoolaat bu baax a yarinu gone yi ngir ñu mën a am un pays émergent